law gi jàngoro coronavirus law ci réewu Sénégal tax na ba secteur yëpp taxaw loole sax dem na ba laal këru attekaay yi lu toll ci ñaari ayu bés ngi nii tirbinal kenn attewu fa mbir boobe nag li ko waral moo di ministre de la justice dafa jël dogal dakkal bépp audience bi doon am ci biir tribunaux yi booble interdiction nag tax ba dossier yi gënoon a siiw ci biir réew mi dal di taxaw bokk na ca dossier député Seydina Fall Bougazeli député APR bi biñ ko tegee woon loxo nag juróon na coow lu bëri ci biir réewum Sénégal. ko doon toppee ci wàllum association de malfaiteurs faux et usage de faux et de corruption Baye Fallou Macky Sall bi comme ni mu doon wooyee boppam section de recherche daat koy tegoon loxo mu yoroon ab sac bu feesoon dell ak ay faux billets de banque ca noonee nag ñu daat koy déglu woon defeere woon ko ca parquet ba gannaaw ba ñu daat koy placé woon sous mandat de dépôt boobaak léegi nag ma nga ca prison bu Rebeuss ca chambre 43 ginnaaw dossier Seydina Fall Bougazelli beneen dossier bu yëkkati woon coow fii ci réewum Sénégal di affaire Mamadou Diop ISEG baayu Abiba Ji moom it ñi ngi ko doon toppee wàllum pédophilie ak détournement de mineur jëmale ko ci waykat bi di wuyoo ci turu Dieynaba nekkoon ci seen Petit Gallé te ay atam toll ci 17 ans Mamadou Diop ISEG nag juge d'instruction bu huitième cabinet bi placé woon na ko sous mandat de dépôt ndax mbirum pédophilie détournement de mineur ca jamono jejee nag mu fekk ñu daal di criminaliser li nga xamante ni moo di pédophilie ak viole fii ci réew Sénégal Diop ISEG nag xale bi li mu ko doon tuumaal moo di daf ko ëmbal bañ ko jamono ji nag patron ISEG bi mu ngi ci détention préventive foofee ca prison bu Rebeuss ginnaaw Diop ISEG dossier Djidiack Diouf ki fi nekkoon manageru Viviane moom it yëngaloon na Sénégal moom bu huitième cabinet bi daal fëggoon na ko ab mandat de dépôt loolee ginnaaw bi ko gendarme yi section de recherche bi tege woon loxo ngir trafic faux visa ak foo et de foo Didiack Diouf nag placé woon nañ ko garde à vue waaye dossier am dañ ko mujjoon bloqué ndax jàngoro coronavirus bi dugg ci réewu Sénégal